te loolu parce que moo bañ li ko yàlla proposé yàlla bàyyi ko ñu sew ñi te yonent bi ku sew rekk la bañ mënul dëkk ku sew suba ba ngoon mënu ko moom jaasee ku ko gënal lépp ku ko jële mu bàyyi ñu sew ñi ba mu xëy rekk takk bagage am daw wuti taayif ni ma nga làqu ji ca najaayee ba mu demee fekk waa màkk miine nañu taayif yépp dafa agsi rekk ñu di ko sànni doj te ca najaay la jëmoon pour ñu protéger ko ñoo ñu santaane ñu ko sànni doj ba yaram yépp yàqoog deret benn làbbe benn làbbe moo ko récupéré yóbbu ko defar ko fomp ko ba mu set ni ko nag dangay tàmbali gisaguloo dara ni ko sa boo yeboo laaj ko sa mbokk bi boo yeboo laaj ko Moussa boo yeboo laaj ko Aïssa gisaguloo dara ndax nawaam yi si ñoo la topp waaw te ñoom fu yiwu yàlla nekk dinañ ko indi ci yow waaye fu musiba amit ko indi ci yow waaw seetal loolu mu ni ko moo tax nag dangay muñ ba mu ko ko waxee rek la soog a siggi xool ci kaw wax yàlla ni ko loo ma teg soo ma jëppiwul rekk baax na loo ma teg soo ma jëppiwul rekk baax na waaw looloo tax mujj na weranteetul ak yàlla waaw mujj na weranteetul ak yàlla parce que yàlla noonu lay def moom moom xam-xamam xam-xamam rekk la moom la ñuy wax xam-xam bu jëkk la mu ca joxe benn toq rek la moom la ñëpp amee moo tax rek mu mat a wattu moo tax rek mu mat a wattu tabarkal la mu mel ni kon nag ci kàttanu yàlla li mu daj yépp njabootam mën nañ ko jariñoo li mu daj yëpp njabootam mën nañ koo jariñoo tabarkalla su ko defee ci biir loolu ñu am ci ay kilifa yu nga xam ni il faut que ñu dégg leen dégg seen kàddu te xam nu ñu koy firee waaw ndax ndax si si del Hajj Malik wax na ko nee na yonent bi li mu daj benn nit ci kaw suuf ma su ko daj te yàlla ni moom la gën a bëgg ah seetal loolu yar ko ci biir intimité yar ko ci biir intimité miinale ko ak phénomène yépp mu nekk ca moo tax c'est à partir de de cette intimité là c'est à partir de ce mélange de doute et de certitude. C'est à partir de ce mélange de contradictions, controverses, que, que, la lumière a jailli pour éclairer l'univers tout entier. la في فضاء الكون طلعته تبقى البرية في ظلماء الله ها وانا دغ مامي تام كندو موم تبارك الله الله يلا خمنكو الله جابدو كان نانا سوما جانجي تيسير بمو جيخ ne dana dem ñamet tedd ci kaw raay ba ne saxaar bu ñëwit do ak si ci man wallaay moo ko daan wax لو لم يلح في فضاء الكون طلعته تبقى البرية في ظلماء الله waaw loolu mooy li nekk su ko defee nag gis naa ni daara yaa ngi góorgóorlu ku ci nekk li nga mën yaa ngi koy def ku ci nekk li nga mën wax yaa ngi koy wax waaye itam na na leen wóor ne aada dëgër na ci réew mi waaw bu mettee metti nag te Cheikh Hadj Omar li mu ci wax lu lu lu mat a bàyyi xel la waaw li mu ci wax lu mat a bàyyi xel la te itam ah, li Thierno Mountaga Taaha wax itam ni wéttal wéttal moo jafe waaw jafe waaye yow itam nga fexe ba mat wéttal loolu moom moom moom moo ci gën waaye aada ju ëpp baaxul aada ju ëpp baaxul ëpp baaxul waaw Abi Jóob baaxul mu mel ni rekk dafay sonnal nit ñi ci façon bu nga xam ni te boo ci duggee ba ci biir rekk borom bi nacc la ndax du bëgg nga wax ko waaw seetal lool ni mu jafee seetal loolu ni mu jafee dama nekk ci benn butik ci tugal yàlla ate benn nit dugg si boo ko gisee rekk xam ni boroom xam-xam la boo ko gisee itam xam ni yàlla fàttewu ko mu ngi dugal ñaari loxo yi ci biir manto naka la dugg si xool man maa ngi taxaw ne ba bëtam tàbbi ci man mu daldi dox ñaari tànk ñëw joxuma loxo waaye nee na ma bonjour te doy na sëkk ëpp na sax <laughs> wallaay am ne ko bonjour

ni ma est-ce que je peux vous offrir une cravate parce que dama dégg ni Paris bu seddee dëgg-dëgg ñëpp dañu takk cravate ndax dañu bañ sedd bi dugg ci seen baat même ambassade ba dañ ma ko daan yeddee ndax ah, man duma takk cravate foofu lu dul may seeti kilifa lu dul loolu ndax dama ci mës bind dama mës bind saaga cravate moo tax <laughs> yàlla xam na ko daf may dikkal parce que buñ ma tooñee ma seet lu ñu gën a fonk ma saaga lool yàlla xam na ko ma ni ma ni ko il nous est interdit de porter une cravate mu ne ma mais pourquoi ma ni ko parce qu'elle symbolise toutes les tracasseries de notre temps c'est une corde autour du cou mu mel ni dafa xaw kanam gi dafa xaw sévère ba mujj ñu continuer di waxtaan mu ni ma est-ce que mën mën nañoo añ xam naa loolu ndeke dafa amoon xaritu guinéen bu gaañu looloo tax waaye ci biir waxtaan wi mujj naa gis ni taalibe Moussa ibn Imran la waaw waaye mu ni ma gëmuma dogme am philosophie am laa gëm ma ni ko mais benn la parce que dogme daggit la ci philosophie philosophie daggit la ci dogme ma ni ko benn la ndeysaan ñu mujj miinante nag ba mu offrir ma sax benn kaamil euh, kaamil euh, c'est-à-dire un Coran traduit en français mu may ma ko ni ma bu ma sañoon nga xamante ki ko bind tudduma ko ma ne ko kooku xam naa ko moom soo ko gis nag ma ne ko dama am benn doomu ndey boo xam ne moo may tudd turam mu ni ma na mu tudd ma ni ko Pierre Crémieux moo may tudd turam waxtu wu nekk ba ci biir Coran traduit bi mu agsi ci wa minkum man yutawaffa ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارض العمر من منك آية بي دفاي تيخو خيزي لي فيياغ موم امون نا 70 ديزان امنا لولو كو ميتي مانيكو ديغلوكو باسكو دونكو اتي سي منطق تي سي فطره nga ko rater ma ni ko toujours loolu lay dugal nit ci kam ma ko boo ko àttee ci mantex rek daal moo tax danga koy delloo ci fitre yàlla li mu wax du terrorisme jegewu ko sax moom nag mu jàpp ni yàlla dafa bëgg terroriser màgget mi ndax li yàlla wax ni wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardalil la il faut que ko ci fitar boo juumee dugg ci pax parce que dafa waaw jaxasoo ndax borom bi man mi man baatu man bi ci may man yuta wafa ñépp dañ cee dugg yàlla rekk a sañ rey doom te nekkagul doom ci biiru ndeyam moom rekk moo sañ rey doom bi mu nekkee doom ba noppi ci biiru ndeyam moom rekk moo sañ rey doom ba mu juddoo ba tàkku moom rekk moo sañ rey doom ba mu watee dem daara walla ba mu matee wut kër xam nga su waxee loolu ba noppi ni la ñii ñëpp ma romb leen ma rey leen fi romb la fi yow ba nga xëy bee jaaw kon sa dund alcool xam nga loolu ko am soixante-dix ans boo ko waxee dafay xam ni wax nga dëgg ndax la mu mënoon mënatu ko tànk yi baaxatu la mu daan lekk mënatu ko lekk dafay daal di xumb ma ni ko nag dégguloo aaya bi boo ko àttee ci fitra nag dégg ko mooy yàlla daf la wax ni ñii ñëpp rey naa leen te yow fekkul nga préparé sama diggante ak yow ma ni ko loo rek la ma ni ko nit ki préparé digganteem ak yàlla lu mu gën a màggat di gën a bëgg boppam ndax yàlla koy def nga du tiit daa du am tiit mu mel na mag mi nga xam ni dafa jóg fekk mook soxnaam ba ñu séyeeg léegi mat na juróom benn fukki at mu génn dajeeg soxnaam di génn mu ni ko ah yow de tey danga sañse yaa ngi mel na bi ngay xaleel nangam nangam tooñ ko bu ko defee jigéen ji dafay kontaan ni ko waaye bu ma tooñati waaye xam nga ni man tàllatuma yii bu ko defee ñu seen beneen màggate ngi ñëw ci sukkootu ñu ni mu yéen kii fu mu nekkoon mu leen yéen maa ngi feebar boo bëtee kenn seet siwu ma nangam nangam fi ñuy waxtaane ñoom ñett yooyu intimité boobu ñu am ak yiw ga ñaari xaleel daw wut si leen ñëw laxasu ko ni ko maam gis nga kii dafa jël sama tàngal kii ni ko déedéet nàngam gis nga diggante boobu bu fekkul woon nga am yàlla àdduna bu tukki lay doon ndax normalement loolu yàlla def noonu waroon na boo ci jógee nga tëjaat sa néeg wax ak moom moom la ñu tudde martabatul munajat am na ñoo xam ne lu ñu wax ak seen soxna wax kook seeni sët ak seen xarit buñ ca jógee yàkkamti nañoo dem ci yàlla ba wax ak moom ndax moo daxaal janna waaw moo daxaal janna martabatul munajat ñëpp d'accord nañ ci ni moo daxaal janna parce que ku ca nekk boo ko comme proposé àjjana mu mbéj la ndax loolu mu nekk moo tax xaajana du benn am yàlla moo tax aljana dafa fekk nag li sëriñ Sidi Lamine Kunta wax ni teraanga kenn du ko delloo yàlla ku mu jox àjjana it nga jël mu jox àjjana nga jël ma yàlla ci boppam moo tax àjjana kon nag boo jógee rek boo yóbbu wuti ko moom moo gën de waaye nekk fii di souffrir sa sa ruux naan la safaraa gi ngay xool fii mu naan àjjanaa gi ngay yàkkamti loolu moom mën na la mën na la gaañ mën la gaañ dëgg la nag àjjana teraanga la ku ko yàlla joxit nga nangu ko waaye rekk noonu rabiatal adawiya waxee ñu ko may ma ma sopp la te nga bañ ma fay lu mat a bàyyi xel